xarañ Pape Matar Sarr mooy joueur bu ndaw bi gën a xarañ ci déndu Afrique Pape Ousmane Sakho moo dugal bii bi gën a rafet ci déndu Afrique équipe nationale bu Sénégal mooy meilleure équipe ci Afrique journal bi nee na razzia la Sénégal bi di Sud Quotidien nee na Sadio Mané bii mooy ñaari yoon xam ne jël na Ballon d'Or yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien mbir moom wax ci élection législative xam ne moom la ñu dëgmala journal bi nee na est xam ne Assane Samb moo xëy di ko laaj na campagne bi engouement bi nga xam ne moom lañ ci doon gis mbaadu tabaski gi moo tax wala nawet beeg baykat yi nga xam ne jamono ji ñoo nekk ci seen tool yi wala examen yi journal bi di Rewmi Quotidien nee na Sonko Barthélémy Dias coalition Yewwi Askan Wi ni ki démb dañu leen a tertu comme ni ñuy tertoo buur ca diwaanu Matam ak triomphal noonu la ko journal bi di Rewmi Quotidien xëy bindee ndax nee na Sonko coalition Yewwi Askan bi ñu demee ca diwaanu Kanela ak ci diwaanu Ourossogui askan wu bare bari ñoo génnoon am na ay nervi yu génnoon song cortège coalition Yewwi Askan Wi takk nee na Farba bi de la témoin xëy tuddee doon menace coalition Yewwi Askan Wi maanaam pënd rek la gis ndax ñoom Barthélémy Dias mbooloo mu takko moo génn daal leen di teerto yéen a kaay gi di bés bi ni musiba ak ki nga xam ne mooy Farba Ngom nee na sàcc bi gën a rëy ci Sénégal fii la dëkk ci Matam yéen a kaay gi de la Tribune moom doomu Jean Paul Dias bi nee na yi nga xam ne ay milliardaire la ñoom ñëpp ay sàcc lañu yéen a la sa ñu xëy fekk fa Aliou Ndoye maire bu Dakar Plateau te de liste benn bokk yaakaar ci département bu Dakar nee na opposition bi wax lu dul dëgg ak sos rek la ñu waaye nag wax lu dul dëgg ak sos kenn munu cee defar am réew yéen a kaay gi di bés bi Ousmane Sonko nee na fii nga xam ne mooy Fuuta amul lenn loo xam ne Macky Sall defal na leen ko Macky Sall di leen di jariñoo waaye jëriñu leen yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na Aminata Touré ma nga woon ca diwaanu Nioro moom diwaanu Sédhiou nee na nag jotee ci assemblée nationale dina amal ay réforme ñi nga xam ne ñuy waa bunt bi ñoom ñoo nga woon ca diwaanu Louga ñoom nag nee nañu bu ñu jotee ci assemblée na dañoo bëgg a soppar ñi li nga xam ne mooy dund ak nekkinu askan wi aar Sénégal ñoom ñoo nga woon ca diwaanu Saint-Louis ñoom nag nee nañu Saint-Louis dañu leen a seetaan ndax nag ñàkkum ndox gi nga xam ne moo am Saint-Louis doy na waar assainissement amul fii nga xam ne mooy Saint-Louis Thierno Alassane Sall démb bu yàkk na musiba ki nga xam ne mooy Mansour Faye yéen kaay gi di bés bi opposition bi amuñu programme wër di wax lu dul dëgg moom rek la ñu fi nekkee yéen i kaay gii di Les Échos ñu xëy fekk fa maître Amadou Diallo mi nga xam ne mooy avocat famille Idrissa Goudiaby mi ñu reyoon ci diwaanu Ziguinchor maître Amadou Diallo moom nag nee na jamono ji mbir mi leer na nañu ne Idrissa Goudiaby balu fetal la ñu ko reyee médecin bi nga xam ne moo njëkk a def autopsie bi moom nag ñoo ngi xool ana nan la ñu koy toppee Guy Marius Sagna dafa bëgg ñu topp procureur bu Ziguinchor daal dinay wax ab plainte ndax nee na procureur bi li mu wax ci lu jëm ci faatuk Idrissa Goudiaby dara du ci dëgg yéene kaay gi di réew mi quotidien liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk hôpital Dantec démb amal nañu assemblée générale mer nañu ba maara détail yi lu toll si juróom ñaar ci ay mbootaay di yëngatu ci wàllu wér gi yaram ke ñoom démb def nañu assemblée générale ndax nee nañu état bu Sénégal bi nga xam ne moo bëgg tabaxaat nee na yoo hôpital lan moo tax nag état bi bëgg jël lu bare bare bare ci hôpital bi daal di koy jaaye loole la ñu xamul lan mooy ndayam te nag am na fi ay liggéey yoo xam ne ñeenti at ba léegi nii liggéey yi munta pare kaay gi di réew mi quotidien daal di say yokk liggéeykat yi nga xam na nag ñoo nekk seen Sen'Eau ñoom nag jamono ji ñoo ngi jëm ci ab grève ndax préavis de grève bi nga xam ne dugaloon nañu ko suba lay jeex sam de ji la nga xam na nag moo waral ñi nga xam ne ñooy liggéey Sen'Eau bëgg a dem grève mooy jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji moom la ñu jànkontala yéene kaay gi di sunu làmb xëy dañu xibaara naan ñu tafaatin nekk good roi des arènes Gris Bordeaux nekk good roi des arènes Lac de Guiers numéro 2 nekk good roi des arènes ñii kañ la ñuy nekk roi des arènes bi xëy ñëw di ko càmbara yéene kaay gi nee na choc am na ni ko diggante